ñoo xam ni ñoo jàppale CNCR si mébétu muy def ak lu muy liggéey ñu ngi si gañ ràññee projet PSS boo xam ni moo ñu jàppale si lu ñuy liggéey fi tey lu ñu fii di waxtaan ak yéen di remercier administrateur CNCR yi yëpp ñëw nañu wuy si seen mbootaay di remercier suñu collaborateurs yii yëpp di si ràññee ay sunu xarit ñu mel na IPAR ñoom inda ñoom ci CODEB ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fii ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant ñu ngi ñu woon fii di leen baaxee benn déclaration boo xam ni CNCR moo ko def di ko ubbee conférence presse bi li ñu war a déclaration boobu rek mooy ñu ngi commencé wax CNCR lan la CNCR mu ngi juddu mbootaay boo xam ni en 93. lu ko tax mais ñu ko dem ba sos ko ñu ngi commencé si waajal taxaw si seen mbir depuis les années 70 ba 93 ñu sos place plateforme boor si liggéeyam bokk na si fexe ba réew mi naax lu gën am solo ñu dëkk si àll bi te di dundee mbéy sàmm ak napp seen métier ñu gën ko considéré te def si li ñu war naam amna luñu ci def mais lu gën am maanaa amna ay ponk yo xamni ni CNCR bëgg noo ko baaxee réew mi pour ñu gën jàppale effectivement monde rural Sénégal lool bokk na si bu si jëpp moy xam ngeen ci 2004 amna ñu loi agro silvo pastoral loi bi dafa waxoon dañu fexé ba formaliser statut ñuy béy ñuy sam ñuy napp te nekk si bi si lool lañu ñu ñaan ak ñuy yo xamni ñi ñu ngi liggéey ci limay lim fi ñi ngi ñek ñaan nañu fexé ba taxwal conseil supérieur bo xamni benn ndaje la té nek ci loi bi war nañ ko am at bu nek ñu taxwal ko pour 2024 pour ñepp ñuy waxtaan ci mbir mbey sam nap mun tok ak autorité yi pour xol liñu ci def ak liñu ci si def ak liñu ci war améliorer si lolou benn jumtuwaay boo xam ni bee moom mooy jumtuwaay joxe xaalis koppoor dañu bëggoon ñu gën woyfal effectivement li ñu koy defee dañu ko gën woyfal si ñetti yooyu benn bi ñu ngi laaj ñu appliquer benn décret boo xam ni génn na si si mooy chapitre 5 bu loi agro pastoral bi suñu paree appliquer décret boobu décret beneen décret boo xam ni moo ngi toppatoo li ñuy wax protection sociale xam ngeen si réew mi. kuy béy kuy sàmm ba tey ñu retraite pour ñu gàttal wax bi rek te loolu dafa war am te pour ñu am il faut ñu organiser ko te loi bi dafa prévoir ban anam la ñu war daar ba am def ko li ñuy ñaan mooy nañu ko appliquer su ñu jógee lool conseil supérieur bi waxoon naa ko ñu fexe ba si financement bi boo gën yombal effectivement teguwaay bi teguwaay bi ñu fexe ba ku koy jël mu ngi joxe juróom.

réforme foncière bu ñuy wax ci réew mi te ñu ko def def na ëpp na ñaar fukk at ñu fexe boo jeexal ko mais suñ koy jeexal mu nekk njëriñ effectivement ñuy béy sàmm nappkat ñu nekk ci àll bi di ci dund ci loolu la leen CNCR woowee tey pour baaxee leen éléments yi ngeen baal ma nag wolof bi dafa xaw tàkk dama résumer rek déclaration bi jar ngeen jëf. xam nañ ne état mit nag booy partenaire ak moom danga koy wax say jafe-jafe wax ko say say say rëq-rëq ak say tëkk te loolu ñu fi rëdd xam nañ ne lu ñu war la mu jub ba paysans yi producteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci plateforme bi ñu tuddee CNCR ah, am nañu li ñu bokk ñu ma di leen wax nag yéen journalistes yi fi di ñëw dama ne nun bay dundee dañuy fay di dundalam réew waaye dañoo bëgg ngeen sensibiliser waa réew mi ba lépp lu ñuy bay ci réew mi ñu war koo jël di ko jëfandikoo ba nga xam ne sunu réew mi day jëm kanam di jëkki li ñuy bay du am solo waaye bu nu bayee dund dundal leen yaakaar naa ne loolu dina am solo loolu laa doon yokkal président di leen gërëm di leen sant toog naa parce que membre fondateur CNCR donc euh, lii président wax Kalidou wax na ko waruñu si yokk dara mais baax nañu leeral benn mbir nous membres du CNCR dañuy béy mais dañuy xalaat suñuy xalaat lañu fi teg naam ay jéego am na mais dañu bëgg li ngeen di dégg souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire nag suñ ko bëggee ñun xalaat nañu poñ yi moo ñu fay yóbbu te poñ yi benn bi rek mënoon la nekk saa benn poñ mais dañ koo toj parce que te jii les statuts du producteur war nañ koo wax war nañ koo mën a jëfe le financement mais ñëpp xam nañ ne tey jii au passage je félicite tous les membres du CNCR waroon nañu wax président 12 pour cent la woon ñoo ko fexe ba mu ñëw pour cent loolu def crédit da campagne 12 pour cent la woon CNCR mbéy bu mel ni la ñu defoon ak ba ñu indi ko pour cent tey ñoo ngi waxtaan daa wareet ñoo ngi waxtaan ak nguur gi bëgg nañu saa yu ñu tase nguur gi ñoo ngi wax loolu mais tey jii dañu bëgg ne fu ñu jëm. ñu jëleel ñu 7 pour cent yi jéem ñu ko indi li nga xamee ne tey jii méngóog nag li nga xam ne suñu bëgg parce que tey jii Sénégal jot na tey jii ñu mun a dundal Sénégal naam la majeure partie des exploitations familiales ñoo ngi dundal seen bopp mais war na ñoo mun dundal Sénégal Benen bi di si foncier foncier bi yeen ñëpp yeen gënné amna jafé jafé mais ñun dañu bëgg.

il y a de milliers de personnes yu nekk suñu ginnaaw donc tey suñu amee jotaay yu mel nii war nañoo mën a toog waxtaan seet luy jëmale Sénégal kanam lu ñu yaakaar nag ñun su wàllu mbay mooy lii maa ngi leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf